jërë ngeen jëf coowal Idrissa Gana Gueye ak Paris Saint-Germain a football moo yónnee keroog talaata ab leetaru football katu Sénégal bii di Gana Gueye ngir mu leeral li ko tee bokk ci max bi ab équipe Paris Saint-Germain doon football keroog dimanche seen digg ak Montpellier na leen wax ndax li ñu ne may bi ñu defoon luy dooleel ak ngóor jigéen la bañoon a sol loolee mooy dëgg am déet fédération France bu football ak ni mu doxalee ci mbirum Idrissa Gana Gueye ak Paris Saint-Germain li ci journal record gis moo jéem a teg ci kaw Idrissa Gana Gueye stade yéene kay nañu nee ko na leeral situation bi baa mu fay ab alamaan honoraire sant nañu ko mu tontu fédération France bu football ci nu mu gën a gaawee sant nañu ko it mayo bi waral coow li taxaw photo wu ngir dakkal coow li l'observateur xëy gàddu coow li ba di ci waxtaan ak waa ji di Stéphane Saint-Rémy directeur bi ONFP e moom waa ji mi ngi wax waa l'observateur ne Gana Gueye ci dëggam la nekk ñun nag dañuy toog di xaar ba ñu susir ñu ngir ñu soog a wane suñu taxawaay ci coow li ay footballkat yu fi woon di ñu ci mel ne Babacar Gueye ak Pape Boye Ndiaye ñoom ay jafe-jafe ci li des ci carrière Idrissa Gana Gueye Gueye meneen di Cheikh Tidiane Gueye administrateur bu chaîne YouTube bii di yoonu àjjana libération nee nañu ma nga ca kaso ba démb la ko mandat dépôt ndax ay kàddu yu tegginewul yu ñu ne da koo yëkkati jëmee ko ci laayeen yi keneen ku laal ci coow li di Amidou bu Daaru Sunna TV libération mi ngi ñuy wax ne moom it ci contrôle judiciaire ca la nekk ki tàggoogul ak justice di meeram Dakaaru Barthélémy septembre ci la verdicte ba di daanu le téema ñu nañu délibération jël vacances yóbbu nañu ko ba ñaar fukki fan benn ceeru septembre muy tombe nag ñu nekk ci digg nawet bi di tombe ñuy nekk ci vacances judiciaires l'info nañu ak lum ci mën di doon ndeyi mbili ji di Barthélémy Dias fa mu taxawoon fa la taxaw ba léegi raful jaaxlewul jaxasowul lu toll ne dee ci wee ay kàddoom ci xët mu njëkk yéenekaay bi moom Barthélémy Dias mu fay wax ni dégg nañu li ñuy wax waaye li ñuy wax askan yi mairie bu ndakaaru fii ak juróomi at yi njiital parti Pastef fii nañu léegi benn combat rek moo fi taxaw moo di fexe ba tere waa Benno Bokk Yaakaar ñu bañ bokk ci wote député yi ci Vox Populi mu nañu fa dinañu takku ba dëgër taxaw def formation boo xam ne dafay taxaw jàmmarloo ak waa Benno Bokk Yaakaar ak seen njiit Macky Sall lu ëpp tuuru dafa doy wax amatul waa Benno Bokk Yaakaar waruñoo bokk ci législative yi journal Mandat di dëggalal ci xëtamu njëkk taxawaay bi opposition bi bëgg a taxawee seen digg ak ñi ci nguur gi nee nañu danañ def seen kemtalaay kàttan ba ñu invalider liste nationale bu Benno Bokk Yaakaar ci élection législative yi nee nañu liste ba du jàll Benno du bokk te dinañu taxaw ñàkkante ko lu ñu ci am jël ñu jël la tribune mi ñuy wax ne du doon ñoom rek ni Bougane Gueye Dany borom gëm sa bopp moom it attaqué na liste Benno Bokk Yaakaar bi attaqué it arrêté bu ministre intérieur Antoine Félix sa bopp déposé ca conseil constitutionnel Moussa Tine Les ko defoon wax neexu ko moo ko tax a bàyyi ab lettre la leen bind delloo leen seen vingt et bi ñu ko joxoon ci liste nationale bi démb bërki démb ci talaata ji source mi ngi ñuy xamal lu doy waar lu ñu dund ci réew mi ñeenti doomi aadama yu ñàkk seen bakkan ci daay gu tàkk ca Podor te yàlla baax ni yéenekaay bi nee na ñu tuuti ko noonu ñu dund lu ko gën a mitti ci ak lakk gu am ca Jolof